asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 24 octobre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi mu mel ni ki nag sunu làmb yi ñu ñëw tey record l'observateur ba ci leewtoo point net bu dee sunu làmb la nag moom Ama Baldé la xëy wan ñu ko Modou Lo ak Lac de Guiers numéro 2 Ama na ca digg ba bu mel ni kii nag yëglekaay bi na Ama fi mu nekk nii day ginnaaw nag ba mu gàntu bëri Tapha nag mu ngi dox ci diggante kii nga xam ne nii moo di kii nga xam ne mooy Modou Lo roi des arènes ak Lac de Guiers numéro 2 ma ca Guédiawaye mu mel ni ki ci diggante boobu fi mu nekk nii fa la taxaw leneen loo xam ne ni tamit li bi di sunu làmb xëy na tey ñëw ci mooy Papa Sow mi nga xam ne ni sunu làmb jàpp na ne fi mu nekk nii day mu ngi ci gu mu nga maanaam maanaam daal mu ngi joué lu fi mu nekk nii daal lu rëy rëy rëy ci digganteem ak Siteu parce que nag yëglikaay bi ne na ndax nag li nga xam ne ni mooy ndamam lu njëkk ci cent pour cent parcelle bi ndax Papa Sow dina ko am ci combat bi nga xam ne nii day moom la jëm digganteem ak Siteu sunu làmb xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu ba tey digganteem ak Siteu yëglikaay bi nee na day li leer ba leer Modou Lo mi nga xam ne nag xaritu Papa Sow la ba pare di boo frère Siteu moom fi mu nekk nii fi muy taxaw ci combat bi moom la yëglikaay bi ni sunu làmb xëy ñëw wax nu ko waaye ba tey combat boobu bu ñu demee ci record Siteu itam am na lu koy xaar ca combat ba muy ay défi yoo xam ne day juróom la ko yëglikaay bi di record jàppee njëkk mooy ce sont balance yi nga xam ne teglante na ko mu dundi ko effacé ko ak itam examen boo xam ne nii day examen de passage la ko yëglikaay bi tudd ndax dana koy jàll ba tey loo xam ne nii day maanaam war na koo def def lu raw boog la nees defoon ndax nees daanoon na Papa Sow wala boog mu def lu na toll waaye tamit réussir li nga nga xam ne ni day mooy duggoon bu njëkk ca biir écurie yëglikaay bi moo ko xëy wax ak leneen loo xam ne daal maanaam la day loolu mooy li nga xam ne mooy juróomi mbir yi xaar xaar si ci combat bi nga xam ne ci la jëm kenn koo xam la koy xaar wala boog lañ ko waxoon daa mel ni moom amul muy tafaatin tafaatin nag ci record daal yëglikaay bi nga mën nga xamal ne day diggante ma guy gi tafaatin leeral na maanaam daal mosut a gàntu bëreeg moom tey wala suba moom daal waxul loolu tey suba waxi noppi keneen koo xam ne yëglikaay bi record ñëw na ci moom muy ki nga xam ne mooy moom nag daa mel ni daal dem na fa nga xam ne mooy ca réewum États-Unis ngir fas yéene nag yokki li nga xam ne nii day moom moo di dooleem maanaam yëglikaay boobu moo xëy ñëw wax nu ko l'observateur moom la mu xëy ñëw andil ñu ko wala ka cay wax mooy Bécaye mbay mu mel ni ki nag li nga xam ne nii day mooy mbirum parrainage yi nga xam ne moo xew léegi ci làmb ji mbir mu nekk ak pareem mu mel ni ki fi mu nekk nii dem na nag di dem di dem ba bëgg nag yegg ci daal maanaam jël li ne nii mooy place u mënaan say ca lañ doon liggéey mel ni fi nga xam ne nii day mooy ci sunu làmb ndax nag daa ñëw ci bilaaw écrit bi nga xam ne moo di Sa Ndiambour dix combats cinq victoire cinq défaites mu mel ni ki nag ba tey yëglikaay bi na Sa Ndiambour moom ñu nga ca daal guddi gu bët setagul ba tey ji ñu nga ca yëglikaay bi ne na daal seenu dox daal dox du nekkul dox goo xam ne nii gu jaaru jaar yoon la ndax nag seen leader ba moom di ndongolo leader la boo xam ne nii ni fi mu nekk ni ab taxawaayam baaxatul waaye Albouri ak ki nga xam ne moo di Bécaye moom ñu ngay assuré di dem tafaas Tine Junior tamit moom espoir la boo xam ne day bu ñu war a bàyyi xel la yëglikaay bi ñëw na ci moom waaye am na fa ñoo xam ne moom seenum taxawaay baaxul moo xam booy Cissé la ak Yanda 2 ak ki nga xam ne mooy Kati Junior ak ki nga xam ne nii mooy Fall Ndiaga ñoom daal fañ leen doon xaar dikkuñu fa yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko waaye leneen muy lambi simple fekk ko fa mu mel ni ki nag li leer ba leer day ngóor senu Diouf wala jax lamb ya nga xam ne moom lañ bëggoon a tëg ci weekend bi muy lamb simple daa mel ni day ndax dina mën a tee am ndax nag la ko waral daal loolu toppane nee na mbër ya même bu ñu renouvelé seen ay licence ay wiñat yañ leen di tafal ci licence yi moo amagul te bu loolu amul moom nañ jàpp ne bëre du mën a am loolu Leewtoo point net moo xëy tey ñëw dina ko wax mel ni ki tamit sunu làmb loolu ñëw na ca maanaam daal mbirum licence yi nga xam ne nii day disponible lugul wala bokk pareegul yëglikaay bi jàpp na ne day moo tax fi mu nekk nii Jackson ak Ngor Sem seen galaaye daa mel ni cat mun ca bëgg a dugg waaye leneen loo xam ne dañ cay ñëw muy combat boo xam ne day combat espoir la ñu ni jim seen production moo ko taxawal muy diggante Tigo xaritu yaayam ak Boy Dakar yëglikaay bi ñëw na tey wax na ko waaye li leer ba leer daal seen see ba ubbi na ñu ne mbër yi war nañoo bëre ñu ne ay wiñet amagul pour seen ay licence ah kon yaakaar naa fast track bañ doon wax seen seen a ko gaawal ngir mbir yi mën a am seen i wiñat promoteur yi tëgg seen i gala mbir ya continuer neex jàmm na ñooy. mbokk waa Leewtoo TV neen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen nag si jàngat bi Babacar maa ngi lay nuyu. fay naa la Ndeye Coumba Fall di nuyu internet yu suivre Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a ne si àddina bi di waxaat nag sama waaju ñëw na sama Baye Fall sama xarit bi yàgg maar di ko ñaanal yàlla yàlla na yaram bi gën a wér. amin Babacar ñu ñëw nag si sunu lam sunu lam tey nag dañ fa dafa ubbee ne tey nag euh, Ama Baldé ginnaaw bu mu bañee bëre ak tafaatin moom daal instant bi ni xelam mi ngi si diggante ak euh, mi ngi si diggante Modou ak ki nga xam ni mooy euh, Tapha Lac Lac de Guiers 2 waaw ah comme rejeté na Tapha comme ni ko waxee tey nag ñu ne mu ngi baagante ci diggante Modou ak Lac waaw diggante bi Modou moom coow li bëri na ci yegg na ba ci ne sax ñu ngi koy dox waaw lu ci mën di am nag yaakaar naa ne adversaire la ñu woote war nañoo war nañoo mën a bëre moog laaj nag ci li ñu doon dégg dañ ne woon du ñu bëree coow li bëri woon na ci ñu déggaat moom mu ne bëgg na bëre ñii ni ñu ne magam ne ne lii loolu mënta ne nangam sàngam loolu nag loo ci mën a xam daal mooy nañu yónni yàgg rek waaye lu ci mën a dégg bu fekkee moog lakk war nañoo bëre combat bu neex la bu dee moog Modou itam waxaale wuñ ko combat bu neex a neex la te yooyu yëpp pour man lu jaadul war a nekk la lu aussi sunu laam ñëw na nag si euh, combat bi diggante Papa ak ki nga xam ni mooy sita nee daal Modou Modou mi ngi si entre le marto et l'enclume maanaam digganteem ak Papa Sow ñëpp xam nañ ko xaritam la compagnon d'entraînement la mais mais tamit Siteu si wàll bi goroom la Babacar. waaw loolu moom am na kon nag euh, waaw comme noonu ñu ko jàppee kii magam la di xaritam muy Papa Sow ñu bokk 100 pour cent parcelle bi di ànd di liggéey ci entraînement loolu Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët muy loo xam ne tamit rafet na ci ay dëkkandoo yaa ngi dégg bu dee Siteu la di gorom moom itam am nañu relation bu sincère mu muudu loolu nag dama damaa jàpp ne warul mën a yàq dara ci diggante muudu ak Siteu wala ci diggante muudu ak papa nañu teg lépp si cadre sport rek yaa ngi dégg jàpp ne sport la papa ak Siteu dañuy liggéey ay millions lañ leen fay ñu war a liggéey seen liggéey du te relation yi nga xam ne ku ci ne moom nga am ak Moodu mu sàmm rafet parce que yaakaar naa Moodu nekk na nit bi nga xam ne am na personnalité bu toll ni loolu du yàq digganteem ak kenn papa Sow it yaakaar naa noonu la mel Siteu itam foog naa ne noonu la mel kon nañ ko teg ci cadre sport rek kon bon ko teg si Casa Sport journal suñu lam tamit ñëw na nag si ñi nga xam te su fekkoon ay élèves lañu mu la leen tuddee les plus grands absents euh, de l' maanaam mooy euh, Aziz Ndiaye Gaston Meng ak ki nga xam ne mooy Lamine Sow ñoom ñaar Gaston ak Aziz na leen jëloon comme conseiller au niveau du bureau du CNG Lamine Sow nag moom mooy kiy filmé en général soo amee ay recours ay images am jël teg ko CNG pour ñu xool ndegam recours bi nañ ko combat bi nañ koy kase verdict bi nañ koy kase wala boog nañuy maintenir euh, kii bi verdict bi ñoom daal ñoom nañu ñetti yooyu ça fait ay mois parce que deux mois ñëwatuñu CNG. waaw ndey kumba loolu daal si lu gàtt moom boo bëggee dëgg-dëgg ñoom ñu ngi leen di copter nañ leen pour ay conseil wala nangam sangam te gisatuñ leen fa wala duñ ñëw si réunion yi muy Aziz wala muy Gaston ah loolu nag yaakaar naa ne foog mu ne est ce que moo taxoon ñu jël leen fa pour loolu li taxoon ñu jël leen yaakaar naa mooy ñuy participer di joxe si seen xalaat parce bu dee Gaston la yaakaar naa am na lu bëri lu mu war a mën a joxe ci lam wala muy def muy film moom defe naa loolu lu ama am loo xam ne daal daal kon ñu ngi wax daal di leen ñaan ñu ñuy teewe parce que tamit dañ leen a yaakaar ba teg leen foofu pour lu avancer loolu làmb Babacar lu suñ jógee nag suñu lamb dañuy dem euh, fi nga xam ne mooy observateur observateur tey dafa ñëw si euh, parrain yi parrain yi soo ko déggee maanaam mooy parrain parrainage am na ay yoo xam ne dañu jël seen seen seen lépp jébbal ko ki nga xam ne si moom la ñuy yaakaar daal pour mu leen di jàppale di leen liiral seen combat si seen contrat ñoom nag nañu soo moytu dañu yàq lamb ji parce que léegi promoteur dootu waxanteeg ak euh, manager parrain lay waxee waxanteel Bécaye Mbengue nag nee na loolu war a mun a yàq parce que nañuy complété waaw loolu day boo bëggee dégg-dégg moom maanaam nekk na mbir moo xam ne nii bu fekkente dañ ko jël ci sens bi nga xam ne mooy sens bu normal bi amul lu mu war a mën a yaa parce que parrain man pour man li ma si xam mooy ki nga xam ne nii maanaam dafay ñëw pour jàppale mbir mi ci maanaam xaalis bu koy fay mu xool nan la ko koy gérer ci yenn contrat sponsoring yi pour mën ko ci jàppale pour yooyu yëpp nga xam ne dafay nekk loo xam ne du cadré ëllëg su bàyyee làmb tamit maanaam viam mën a normal mu mën a dund dund bu normal yaakaar naa parrainage bi loolu la ak tamit des yenn voyage yi su waree dem à l'extérieur entraînement yi ak yooyu mu di ko ci dimbali yaa ngi dégg bu fekkente ne nag dañu dem ba ñu xalaat mu jël place parrain ba dañu xamatul seen rôle waaye bu ñu xamee seen rôle moom yaakaar naa la mën a sa liggéey ak la parrain bay liggéey jaxasoo waru ci mën a am daal pour man ñu jógee nag euh, si observateur dem si record si euh, si xalima Abou Nour te nag dafa def euh, benn jàngat ne les cinq les cinq défis yi nga xam ne moom mooy xaar Siteu si combat ak Papa bi ñu si mën a jàpp rek mooy nee ñu Siteu bi mooy premier combat am si écurie beneen bi mooy dafa jógee si ñaari saison yoo xam ne benn bi defet la am benn bi saison blanche donc nee ñu il faut mu passer aussi examen bi nga xam ni moom la war a jàll si kanamu Papa Sow waaw waaw loolu cinq défis comme ni ko record waxee waaw bu dee ci digganteem ak écurie la moom waaw defe naa mu fay door dugg comme mbër kon yaakaar naa loolu défi bu mu war a ñëw wone fa boppam la yaa ngi dégg mu am ca mbër boo xam ne nag ci mbër bu mag ci mbër yu mag yàlla bokk ci écurie bu muy Papa Sow beneen bi ci des mooy Papa Sow moomu nees bëri woon nag moom daan ko si taag nees ñoo bokk benn écurie loolu tamit lu koy xaar la yaa ngi dégg année balance def na ko ak jóge ci defet loolu tamit war na ko mën a euh, lijjanti ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daal bëri na ak tamit xëy na tegaat lamsaar ji ci yoon comme ni ko yëglekaay bi wax mais lu ci am solo daal mooy lépp lépp yaakaar naa ne Siteu war na xam loolu te te li ko motivé ba mu jël combat bi defe naa loolu yëpp ci la bokk waaye nag sport la ñuy def làmb la ñuy def la muy bëgg la papa di bëgg la papa di bëgg lay bëgg ku ci ne ndam ngay bëgg di moytu defet du tere nag buñ bëree fakk ndam dina am wala defet am wala match te match nul moom yaakaaruñ ko fa lenn maanaam kenn ki am ndam kenn ki am defet loolu mooy sport te du tere nag ku ci ne sa làmb continent pour man donte nag ku ci am dafa dina métti ci yow moom. record aussi mi ngi xamal ne ki nga xam ne mooy Yékini Junior ginnaaw mu jógee France jàll nag dem États-Unis waaw waaw Yékini Junior kon dafa jógee États-Unis ñoqali comme ni ma la waxee woon sàng dem France dafa jóge France ñoqali dem États-Unis waaw loolu mën na ne Yékini Junior Papa Ndiaye maa ngi lay nuyu <laughs> moom daf maa sonal waa jooju di ko nuyu mu nga New York wala ba mu nga États-Unis boog di préparer waa loolu la parce que moom tamit dafa war a bëri dafa war a bëri dafa war a bëri boo xoolee mu jóge ci digganteem ak Tapha ba tey bëri waatul def na année balance te digganteem ak Sa Thiès boobu ba tey ñu ngi ciy wax te ñoom ñaar yaakaar naa làmb da leen boole actuellement Yékini Junior Sa Thiès da di lu jaadoo jaadoo lu war a mën a am la waaw baax ko suñu jógee nag si record nañuy dem fi nga xam ne mooy Leewtoo TV Leewtoo TV li xamal ni que combat bi nga xam ne dafa waroon am galaadu bi nga xam ne Ngor Sim la ko woon tëgg le 27 moom daal mu soo matul du am parce que li nga xam ne mooy vignette yi war a li war a taf si euh, licence su mbër yi ñoom noo pareegul Babacar. waaw loolu day su amee yaakaar naa ne du du bëre du mën a am. ndax nag weñet bi mooy tax licence bi mën a normal pour ñu mën ci bëri bu fekkee nag loolu amul comme noonu ñu ko Leewtoo point net waxee ah kon xaar day mën a am waaye nag loo ci mën a dégg bu fekkee man li may xal li may jàpp mooy buñ ne CNG ubbi na le premier octobre tey ñu lekk nekk le 24 octobre pour man tamit yooyu waroon nañ cee jël seen ay dispositif ba nga xam ne nii boo nee ubbi nga rek mbër mi su ñëwee war a renouveler licence am du am lu koy kale moo xam wiñet la moo xam assurance la moo xam lu mën a doon pour man boo ne ubbi nga saison bi buy ñëw di renouveler lépp da ko fa war a fekk mu complet nga xam ne dina mën a renouveler licence am dem yoonam saa bu lambaamee mu dem mën a bëri mais lii moom yaakaar nag sama gis-gis warul na demee nii quoi. Babacar jeexale nag ak nouvelle bu neex nee ñu ci journal bi nga xam ne mooy sunu lamb nee ñu kii di Lac de day takk euh, soxna dimanche incha allah fee ci Cyprus ku ñuy wax maman Aïcha. ah heure ménage kon Lac waaw dafa jot nag. lii moom du lu du du li li olof naan lu ñor taabik lu ngësëm leen di mbirum lag mii moom yaakaar naa ngësëm andiwu ko ñorul taab euh, gësëmee su ko dafa ñor taab bi laga ngay takk jabar fi mu nekk nii defe naa ñëpp a ko doon xaar ko ñu koy ñaanal yàlla sëy boobu yàlla nañ ko fas ci jàmm te mu am ci njaboot bu am barke barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci sëy yu barke yi waaw loolu moom lu baax la góor moom boo si tolloo war ko def def ko takk soxna parce que responsabilité la lay yokk gën la yokk barke te aayul kon yéen ñi ko amagul yow amagoo boroom kër daal dina ñëw yàgg maar ma lay itam na def efort takk comme lak takk na moo la boog mu ngay waaj a takk dimanche incha allah. yow tam nga def effort takk wutalal teneen rakk tamit ndax jot na ndax yàgg na macha allah si kàddu yoon leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay merci nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Dadi Gueye di nuyu ki nga xam ne mooy astandine depuis Parcelles Assainies DG Brahma nuyu soxnaam euh, Khadija Diallo nuyu samay doom Penda Diara Fallou Rokhaya Moussa Eva Diallo di nuyu aussi Abou Gueye depuis États-Unis doomu ndeyu Cité di nuyu aussi depuis France naan ko excel ak jàmm. waaw di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm comme ni nga ko wax rek dégg naa li nga ñaanal te ne ñun moom ay góor yàlla la ñu di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di ñëpp jàmm mais itam di bëggee ñi nga xam ne dañuy seetaan parce que ki lay seetaan di xool li nga xam ne nii des fois du baax mu naan la jubbanti kooku amuloo fayam kon internet yi yàlla na leen yàlla fay duñ ci fàtte nag ku mel ni tuuti yaay Sarr ñoom Khady Rose Ndiaye xam nga ñoom coach su jabang sama xarit nekk ca Paris la France sama rakk Youssou Ndoye ak ki nga xam ne nii mooy Habib Ndoye moom tamit nekk ba États-Unis d'Amérique di nuyu bépp internaute rek di ñaanal ñëpp jàmm di nuyuwaat yàggamaar comme ni ma ko waxee di la nuyu di nuyu waa Leewtoo yëpp mais nag di wax mention spéciale DC Leewtoo Pape Thialis Faye yàlla na Sénégal am jàmm.